effectivement nga xam ne ay tappale la def peut-être am na chance. parce que tirage au sort la ki nga xamante ne léegi ki nga xamante ne moom dafa am 44000 doublons. ah 44000 doublons son nom c'est comment. xaaral ma xool ci liste bi. Mamadou Mbodj F24. mu ngi ak ñun Amadou Seck Jérôme Amadou Seck. Amadou Seck 44000 doublons la am bëri na bëri na doublons externe. Mamadou Mbodj ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi jërëjëf ñu ngi am mbégte ànd ak yow ci édition spéciale bi jagleel ko processus électoral bi nga xam ne tey def nañ ci benn pas ba clôturer ko mooy contrôle parrainage ak ñi nga xam ne ñoo war a mottali bien sûr waaye ba fi ñu toll nii coow rek moo ci amagum ndax am na parrain yu ñu ne nekk ñu ci fichier électoral bi doublon yi jéggi dayoo dossier Ousmane Sonko aussi ñu ne duñ ko contrôler parce que c'est un dossier incomplet tey ban commentaire ngay def ci fi ñu tollagum ci processus électoral bi. ba aw ma ci mbetteel ndaxte li nga gis nañ ko répété nañ ne deux mille vingt yi nga xam ne ñoo saytu prospective à Sénégal dañoo joxe ay ndig ay teg ay tegtal mais lii kat bu ko defee bu émission ñëwaatee dina am transparence te loolu Euh, defuñ ci lenn ñun wax nañ ko benn bi mu naa gis rek ñaar ba ñëpp rek benn bi mooy que newoon nañu code source logiciel bi permettre ñu vérifier pareil yi dañ ko mettre dañ ko war a mettre à disposition mm-hmm. de leurs mm-hmm. de la de la société civile mm-hmm. buñ ko bu ñu ko joxee du tere ñu may leen ñu mën a contrôler à tout moment mm-hmm. est-ce que logiciel bi changé nañ ko mm-hmm. woon changé wuñu loolu experts la on s'en souvient oui dañuy dañuy bind mm-hmm. dañu ne am na ay doute ak ay suspicion yoo xam ne mu ngi ci logiciel bi yow ku transparence la loo xam ne dañu di doute jiixi jaaxa ak jaaxle ci euh, processus da nga ko war ñoom génnewuñ ko ñun fàttali nañ ko wax nañ ko waxaat ko mhm. kenn dégluwuñu mhm. xamoon nañ ne lii moom lu ci mën a ñàkk li ci gën a doy waar nag mooy ay dizaine de milliers nga ñëw ne ma dix mille kii ne treize mille kii ne nangami mille yoo xam ne ay citoyen lañu mhm. ñu dem xool seen carte d'identité xam ne am nañ carte d'électeur xam nañ ne wote nañ wala am nañ bureau de vote buñ leen fekk leen hmm. ñooñu ñu ne bokkul hmm. loolu lu doy waar la beneen bi code source bu weesoo mooy fichier électoral bi fichier électoral bi dañ ko consolidé donc am na ay soppi soppi ci nekk buñ ko soppee bu ñu jox ko candidat yëpp ñu ne fichier bi kat mooy fichier de référence d'ailleurs sax dañu ko doon jox bien avant ñoom hmm. ñu vérifier mais defuñu ko buñ ñëwee nag nga xamee ne ay lënt lënt ay lëndëm lëndëm am na ci fichier bi am ci logiciel bi mais dinañ dàqal koo xam ne du xam lu tax ñu dàq ko parce que moom def na coonoom def alalam hmm. dugg ci àll bi jël ay citoyen xool vérifier seen carte d'identité ñëw ñu ne ko ñëw ñu bokkuñu doublon yi mais boo jëlee quatre vingt treize candidats mais foog moo ay doublon donc surtout que am na ñoo xam ne presque am na ko wax léegi dañuy trafic ay ay ay ay ay donc mais euh, dafa am loo xam ne dafa juróom caaxaan quoi parce que mënoo jël opération bu amee fayda nit plus électoral nga def ko tirage au sort def nit quatre vingt treizième quatre vingt treizième comme Aïda Mbodj quatre vingt onzième comme Thierno Alassane ñoo ñu da ngay amul te ci biir gis nañu ñoo xam ne waru ñoon diitu bokk ku déposé wul question mais warul ñëw ku xam ne amuloo ay mille huit cent moom donc am nañ ay travail préalable bu bëri bu ñu def boo xam ne wàllu defuñu ko te loolu wane rek ne bi ñu woon ne parrainage bi ñu rek ne li tax ñu maintenir ko mooy ñoom li ñu bëgg mooy sélection sélection ay candidat yi ñu neex yoo xam ne buñ ci dàqee nit kenn xam ñu ngi te su ñu bëggoon transparence dinañu tirer leçon euh, ko tirer dañ leen ko transparence bi dañ ko diggante ak ak yi ñu def li nga xam ne dañ waxtaan ñu ne lii la ñu bàyyi lii la bundi donc loolu amul donc loolu bett bi mm-hmm. li ñu bett aussi mooy mm-hmm. ñu teggi Ousmane Sonko parce que depuis deux mille vingt et un gis ne dañu jël moyen de l'État di persécuter benn nit di ko jiiñ loo xam ne amul nee nañ viol nee nañu menace de mort juge bi nee na amul li ci gën a doy waar mooy ñu nekk dans pays où ñu luubal milliards kañ ay ay doomi réew mi cent mille cent vingt mille emplois au lieu que saytu loolu yóbbu ko procès daan ñi nga xam ne def nañ ci dara non non candidat boo xam ne wax na ci la ñuy yóbbu ñu rencontre loolu mooy le comble du déni de justice loolu mooy réew mi en fait droit amu fi loi tëraluñ ko dañuy violer loi yi euh, amul li ñuy wax li ñuy wax gestion sobre et donc euh, tristesse nag lañ ci am parce que wax dëgg yàlla buñ gisee ne processus électoral bi dañ ko piégé wax nañ ko dañ ko saboté départ Donc, ça veut dire qu'à la fin, mhm. ce qui s'est passé, mooy que le, le, le suffrage universel reflète duñ ko refléter parce que porte booy Mboré mais bu ñu ko privé ay ay candidats Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na ci espoir dañuy installé ci réew mi yokk ci réew mi désespérance maanaam ñàkk ñàkk kóolute ak euh, ñàkk yaakaar mhm. réew mi te loolu mooy tax ñu dem Nicaragua ñu dem Europe dañu gën a bari gën a bari mhm. léegi léegi loolu baaxul ci mm. léegi monsieur Mbodj euh, oui euh, yéen au sein du du F24 dafa mel ni problème yi sax xawoon ngeen ko sol su ma ne xawoon ngeen sax soulever soulever ngeen ko waaye nag yéen yan yan méthode ngeen allo allo allo oui yaa ngi may déggam allo Mamadou waaw ma ah. ne ma ne yéen au sein du F24 gisoon nañ ne problème yi ni mel jëmee ci processus électoral bi am na mbir yu bari yoo xamante ni yéen euh, waxoon ngeen ci ba euh, di waajal seen bopp donc lan moo tax ba jamono ji candidat yi nga xamante ne ñu bari euh, si ñëwoon nañ charte yu F24 ñëw ba fi ni toll amee amee amee yenn jafe-jafe ak appuis bi nga xamante ne xëy na waa F24 yëpp war nañ ko def ngir ñoom ñi lee tey euh, suñu amee ay gàllankoor ngir ñëpp ngay mën a bootu euh, ànd ak ñoom euh, xeex li mel wala sax yuuxu ko ba au moins lii lee mën a mën a bañ a dal ñëpp. mais d'ailleurs ñoom annoncé woon nañ fi benn logiciel effectivement pour dimbale seen ay candidats ñu bañ a am yenn problème parrainage yi. Mamadou Mbodj. yaa ngi dégg. Euh, la liaison déggante bi neexul jafe-jafe ci jox bi. jusqu'au dernier moment. Mhm. ñoom déggante bi neexatul. allo. waa déggante bi neexatul woon ñu ngi lay dégg léegi. est-ce que doo ñu baal déplacé wu tuuti. Mamadou Mbodj bu f quatre euh, kon euh, ñu toll ak moom ci euh, waaw waaw léegi tane na ñu ngi lay dégg. allez toog di xool. donc. Hmm? ma ne est-ce que du ngay ñoo commencé tàmbale saboté waat réseau <laughs> xam nga man moom sama xel am la pour dégg ko monsieur Mamadou Mbodj. Euh, aussi mu wax ci logiciel bi. parce que tamit su fekkee seen logiciel bi parce que bu fekkente ni ñoom amoon nañu logiciel pour jàppale seen candidat yi ñu ñëw ba tey pratiquement. Euh, soo bëggee dalal bi ngay wax. Euh, voilà ah, <laughs> Mamadou Mbodj bu F24 la ñuy jokkool Jérôme y a même problème hein. man man. y a des problèmes oui. Mhm. Mamadou Mbodj. Mamadou Mbodj. oui. waaw léegi ñu ngi lay dégg jafe-jafe la woon ci réseau bi. waaw waaw dégg laaj bi. waaw waaw. waaw aywa man. ma ne li ko waral mooy euh, parenage bi. entreprise bu diis diis la opération bu jafe. Mm-hmm. te candidat yi biñ ci jubloo dañoo toog ba nga xam ne euh, ñoon am jot pour ñëw def dédoublement bi. dédoublement bi foo sax moom itam dafa laajoon ay conditions yoo xam ne. Mm-hmm. ñu bari xëy na dafa jafe woon ci ñoom. Mhm. ndax comme ni ma ko waxee mënuñu woon pare defar parrainage bi à temps. Mhm. donc loolu moo tax doublage moom moo defuñu ko donc moo tax doublon externe yi bëri. Mhm. mais du loolu rek parce que candidats yi ñu compté sur les quatre vingt treize quarante deux ñoo bokk F23 F24 donc euh, ku ñu dugal quatre ay dabo ñu dugal quatre vingt treizième place. kooku nu mu dafay am ay doublage moo ci Alassane ak ñeneen. donc euh, candidats bari na nañu bëri xam ne tri bi waroon am au départ defuñu ko. donc loolu meneen bi mooy li ma wax lépp wax nañ ko waxaat ko waxaat ko malheureusement ñu te peut-être ñun suñu tort en tant que F24. Hmm. mooy que candidat yi boole wu ñu def benn dank def force dissuasive comme ni ñu ko defee woon en mai avril. Hmm. parce que loolu bu continuer woon. Hmm. xëy na dinañu mën a am peser sur la balance pour que li ñuy laaj ñu jox ñu ko. parce que nee nañ lii la ñuy réclamer te li ñuy réclamer du ñun ñoo ko inventé. ay experts ñoo def ay études. processus électoral ne lii kat doxut nañu fexe ba beneen yoon ñu defe ko nii. Mhm. buñ ko bu ñu conseil constitutionnel am na ko. Sénat am na ko gouvernement bi am na ko. Mhm. buñ leen ko laajul sax dañ ko waroon def. Mhm. bu fekk am nañ volonté politique def transparence def ay élections yoo xam ne dafa jaar yoon. waaye li ñu gis mooy euh, processus bi dañ ko piégé dañ ko sabote au départ bu nga xam ne bu ñu àggee ci cappaandaw ga résultat bi du nekk loo xam ne conforme à la volonté populaire. et le FIT dans tout ça front euh, pour euh, que élection yi jaar yoon pour l'inclusivité et la transparence des, des élections FIT fan la féete tey ci ci processus bi hmm, bon man xam nga bon FIT ak euh, F24 dafa am ay euh, ñu bokk mais du benn mais am na lu leen boole est-ce que tey li ñu bari ñu nekk FIT bokk nañu F24 justement mais est-ce que tey FIT am na taxawaay bu mu am ci processus électoral bi toll wala ci wax ja rek ngeen yem ba léegi bon xam nga ñun euh, en vérité wax lañ mën parce que comme ni ma ko waxee rejet naa ko ñun euh, nekkuñu fi pour xeex pour ay euh, nee nañu nit ñi dee bari nañu ñi gaa ñu bari nañu ñi yàqule bari nañu hmm. te ñun bugguñu loolu yokku ay nit ñu dee ak yooyu du du loo xam ne moo ñu soxal donc ay manifestation pacifique lañu mën def ñu tere ñu ko bon foofu la ñu mën a yem ak reteet ak wax Euh, dénoncé chaque jour ñu génne communiqué hmm. wax ne lii dox lii dox lii doxul foofu en tout cas foofu mooy suñu limite xëy na mënooñu def leneen mais pour le moment moom euh, wax dëgg yàlla passé wuñu loolu léegi est-ce que malgré li xew ni yëpp yaakaar nga ni euh, l'élection est encore sovable wala mun nañu mucc ci crise post-électorale parce que li xew ni yëpp lu bari en tout cas wane na ni ci crise post-électorale la ñu jëm maanaam élection boo xam ne coow lu rëy moo ciy topp est-ce que loo jàpp ne mun nañ ko ci dabuwaat pour pour mucc si loolu crise pré électorale sax mën naam am. ah mais euh, am na luñ ci mun dabu. Mhm. sans pour autant que ñu mun a garantir ne jeunes yi ak population yi nga xam ne dañoo euh, frustré am doy naqar yi. Mhm. dañ leen a contrôler. Mhm. man gëm naa ne tey euh, bu fekkee ne sécuriser en tout cas ñu ci lañu nekk ñu ngi ciy liggéey. sécurisation processus électoral. pour que moom ay élections transparentes maanaam bu ñu jotee. carte électorale bi xam bureau de vote yëpp ñu am ñu fa nekk bon xëy na dina atténuer li nga xam ne mooy euh, euh, sabotage bi ñu def processus bi te loolu bu boobaa xëy na yaakaar dina des ne volonté populaire bi dañ ko mën a def ci kenn koo xam ne dina indi ay changement yi nga xam ne ñu bëri ñu koy xaar bu fekkee loolu amul nag bon wax dëgg yàlla man euh, ya mais mais est ce que mënati nañu wax sax élection transparente <laughs> parce que ba ah. fi ñu toll xamaguñu ñaata nit. <laughs> la génnee ci fichier bi xamaguñu ban fichier la ñuy. demee élection waaw waaw non xam nga loolu lañ bëgg. Ah. ñun nee nañu fichier bi dañ ko consolider. Hmm. non seulement dañ ko war a jox candidat yëpp ak organisation civile. Hmm. mais dañ ko war a affiche ci commune yi. pour que ku nekk xool yow ban bureau de vote nga bokk est ce hmm. yaa nga fa. ñu ñëpp ñu wax leen ñu dem jël seen carte électorale. bu fekkee ne amul perturbation ci carte euh, ci ci carte carte yi carte de vote yi hmm. maanaam euh, duñ jël sa bureau yow nga nekk dëkk Guédiawaye jël sa carte électorale yóbbu ko Fatick loolu bu amut dina atténuer bu fekkee ne li ñuy wax transfert de d'électeurs amul au niveau transfrontalier au niveau des frontières loolu aussi xëy na dina atténuer donc bu fekkee ne amul ay bureau de vote yoo xam ne amul benn benn représentant des partis politiques d'opposition bon loolu aussi mun a atténuer donc y a des éléments yoo xam ne conditions yoo xam ne ñu ko créer dina tax euh, euh, élection yi bon mënuñu wax ni dina jaar yoon totalement mais dina tane ba nga xam ne lii faussé scrutin bi du bari parce que bu fekkee ne euh, li ñu yàq ay cinq pour cent la pour cent hmm. bon du am peut-être Euh, conséquence yu terribles sur résultat bi. mais fi mu ne kenn xamagul kenn xamagul ampleur li xew monsieur Mbodj c'est ça le problème. Hmm? ma ne li xew nii kenn xamagul ban ampleur la am nan la toll mënaguñ ko xam. waaw mais il faut que moo tax tey ak suba ak gannaaw suba nañ waxaat. Hmm. nañ ñu jox nit ñi fichier électoral bi fichier électoral consolidé muy benn fichier ñëpp bokk ko. Hmm. ñu jël carte électorale bi ñu wone ko. ñu wax ni ñi ku nekk sa carte fu mu nekk nga dem jëli ko ñi nga xam ne jëleeguñ ko loolu ci li nga xam ne dina tax euh, élection yi tane euh, parce que mu amul peut-être fiabilité totale à cent pour cent hmm. mais bu fekkee ne wàññi nañ fraude beeg yooyu nga xam ne dina yàq élection yi ba nga xam ne conséquences yi du bari bon dina tane ah je crois il y a des choses qu'on peut sauver qu'on peut sauver dans ce pays là pourvu que ñu dégluñu ñu. Hmm. pourvu que ñu def li nga xam ne euh, moo jë moo jëm ci booru transparence mais est-ce que yaakaar nga ñu koy organiser quand du pouvoir bi dégg leen. parce que booba ba tey yéen a ngi wax dégguñu leen est-ce que tey lañ leen di dégg. ndax ñoom itam euh, ndam lañu ñu bëgg waxi ku kaw d'ailleurs le président doon wax Jérôme. effectivement waaw waaw loolu moom dëgg la mais tàggoog élection yi <laughs> ñoom. waaw bon xam nga ñun nag dinañ wax dinañ jéem boole nit ñi maanaam unir force yi. bu fekkee force yi taxaw nañ jàmmaarloo ak ñoom ñu xam ne lii kat euh, bu ñu ci jógul xëy na du gën ci réew mi moo xëy na ñu dellu ginnaaw bu ñu delloo ginnaaw na ñu waxtaan def li nga xam ne peut-être na tax élection yi xaw a jaar yoon. Hmm. jërëjëf Mamadou Mbodj. waaw balaa muy dem allo monsieur Mbodj. Ah, waaw waaw. waaw une petite réaction par rapport à la démission de Mamadou Ibarkane bi nga xamante ne gis nañ ne euh, démissionné na F24 dem soutenir candidature bu Amadou Ba. mais je crois que xam nga F23 moom F24 moom porte dañoo tijji ku bëgg a dugg dugg ku bëgg a génn génn. <laughs> donc euh, ce que je peux dire c'est qu'il a fait avec élégance il a écrit il est bon vraiment dans des termes très corrects aux gens. Hmm. bon loolu laa ci mën a wax c'est vrai que bu ma sañoon mu toog mais il faut respecter sa décision. bett na leen demam. Bon, on s'attend à tout, hein, quand on est à F24. On sait que depuis que bi président ne bokkatul troisième mandat. Mhm. xam nañ ne ñu bari dañ ñëw pour troisième mandat moo leen indi woon. Mhm. Ah. donc bu fekkee troisième mandat amatul déjà am na ñu bari ñoo xam ne gisatuñ leen sax démissionné wuñ nii comme ni mu ko defee. mais am na ñoo xam ne leen. donc euh, bunt bu ubbeeku rek est que du loolu moo wàññi force de frappe bu F24. Mhm. tax xëy na seen doole bareetul bu ngeen waxee kenn du leen dégg. Euh, waaw waaw loolu bokk na ci mais li ko gën a wàññi dooleem mooy peut-être que candidat yi euh, unité bi ñu waroon wane wane wuñu ko. ko parce que ñi fi des bari nañ comme j'ai dit tout hmm. boo defee comptabilité sur les quatre-vingt-treize ñu ngi ci liste bi quarante-deux ñu ngi ci F24 te ñu ci gën a am significatif la. Hmm. donc ñu jàll ñëpp presque F24 lañ donc candidat yi am doole ci réew mi ñu ngi F24 donc malheureusement. Euh, processus bi demee noo xam ne parrainage bi diis na boo xam ne ku nekk da ngay toppatoo say parrain depuis plusieurs semaines. Mhm. loolu moo tax xëy na seen présence wàññeeku. Mhm. te loolu day wàññi également dooli dooli dooli F24. Mhm. jërëjëf euh, Mamadou Mbodj ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool jokkoo ak yow ci euh, édition spéciale bi ñu jagleel processus électoral bi jërëjëf. merci jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Jérôme yaakaar naa ne euh, waaw wax na wax ah. ji ba mu leer <laughs> F24 moom bu dëgg rek desee euh, moom ak fit gisuma la ñu mun a changer ci fi processus électoral bi mais mais man tamit j'aurais bien aimé quand même voir quand comme euh, ni ñu ko defee démb waa fit ni ñu ko defee démb ñoom ñëpp ñu booloo def conférence mm. de presse